di waaj iya, Eh, fiis ci ci xewle nag moom moo tax ñuy waajal. borom le 29 ak le premier. waaw hmm. depuis le début yaa fi. fekkee nga lépp kenn mënul laaj kenn te la. déedéet ndax bi nga koy xool di gis talent ci moom boobu tuuti la. waaw boobu boobu lu ndaw la day eh. lu ndaw la je me ñëw ñu ngi def combinaison zine am kersa la mbàkke ne ma day way ma ko yow da ngay way mu ma ne ko mën nga way mu ma mën naa way kay ma ko ah kon bu la joxoon micro di nga way bien sûr borom dina dina ak super étoile

mel ni nga mel mais loolu nag mbiru yàlla la. Hmm. moo tax nag le 29 mu jox ko xale yi. Hmm. bal des enfants. fële ci machine daan si je ne me trompe pas. waaw le premier janvier. yëfu mag euh, le premier <laughs> octobre. le premier octobre yëfu mag lay doon yëfu mag. nekk anniversaire de Dorof Ban. waaw donc nekk sama anniversaire ma nekk sama jëmm. Youssou Ndour waaw octobre c'est le mois des stars. voilà ah octobre first. le mois des stars. mais mi ngi <laughs> noonu mu fas yéene ci sargal. dinañ la fa gis kon euh, Ah, mais bien sûr ñaar yëpp ndax yow xaritu xale yi nga xaritu mag ñi. mi ngi noonu. mu yegg ci ak jàmm. incha allah mu